Tataguine njongoloor Kër Martin yi dëkk la waxtu wa doon jot jot na fa noonu la jotee ci mboolem gox boo ko wër bisimilah ci xibaar yi xibaar yi. ñu ci xibaar yi ak Ismaïla Sarr bi nga xamante ni bii jaar nga mu jaar foofee ca Marseille mi ngi mel ni keroog diggu njoloor ndax gàtt la daal di def waaye naka lu ci mën a daal di am mooy. Euh, sant na gërëm waa Marseille ginnaaw bu mu demee démb foofu nga xam ci Crystal Palace daal di mottali li nga xam moo di ab contrat moom Ismaïla Sarr sant na gërëm nag waa Marseille bu baax ci li nga xamante ne bi mooy tatagal gën ko fa tatagal ak rafet ba mu nekkan ak ñoom loolee xolam set na ci moom Ismaïla Sarr ñu jóge ci Ismaïla Sarr dal ci William Assoula moom mi nga xam nag daal dinay mottali contrat foofee nga xamante ne bii moo di ca Newcastle boobu transfert njëg ga ñu ngi koy xayma ci 10 millions de livres sterling ak juróomi millions yoo xamante ne ci livres sterling boobale yoo xam ne juróom yooyu bonus lay doon maanaam ñu di ko wax maxuus ci gone gi nga xamante ni bii daal dinay mottali ab contrat foofu nga xam moo di ca Newcastle loolu ki ko bind moo di uh, Fabrizio Romano ñu jóge ci Fabrizio Romano ki xibaaram dal ci ki nga xamante ne bii moo di da nga maame gone gi de moom nag uh, mi ngi tudd Dani Gomes moom nag dem na foofe nga xam moo di ca Valencia moom mii nga xam moo Dani Gomes kon loolu transfert la boo xamante ne bii ci biir transfert yi moom uh, yemb na ñu jóge fa dem France fekk fa Kimpembe ci foofe ca Paris moom nag danoo daal di xam la ni moom ay fan yu bëree ngi nii yoo xam ne tàggatul ànd ak ñi di waa Paris Saint-Germain la ko daal di sabab du dara lu dul maanaam problème physique la daal di am moo tax sax mënul bokk ci li nga xam moo di groupement yooyu ànd ak waa Paris saint moom mi nga xam moo di euh, Kimpembe euh, ñii di Manchester United bëgg na ñaar ñii nga xamante ne bii ñoo di dégg maamee ñaari gone yu Bayern Munich yi Mazraoui marocain bi la ak ki nga xamante ne bii moo di Delic ñii nag euh, ñoo ko daal di bëgg bëgg goo xam ne daal àgg na ci lool sax waaye loo ci mën a jàpp mooy ñii di waa Manchester United takk naan ab xaalis bu bëri yóbbul ko ñii di Bayern Munich Bayern Munich daal di ko rejeté kon loolu mbir la moo xam Manchester United ñu ngi topp ci mbir moom la di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo di Bayern kon bàyyi woonu gone yi la ndax ñoom bëgg na leen ci li nga xam moo di seen club boobule mbokk yi di ma fi amoon ci lu doon yëgle ba ci kanam ak yeneen tàggatoo ba ci keneen